lay bàyyi ñu doxal xalaas xam nga àjjuma moom. Uh-huh. Euh, dafa war a dafa war a jax. dafa war a jax quoi. Uh-huh. Mena Ndiaye. waaw euh, dama am xalaas express. bismillah du sax xalaas express loolu moo xalaas dëggantaan la. <laughs> dafa am benn waay bu ñuy wax Mamadou Ndoye. Mm-hmm. nekk agent mairie Bambilor. Mm-hmm. agent mairie Bambilor la Mamadou Ndoye mais dafa dem defar benn carte professionnelle.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 am nga droit bañ ak wax ak moom ndax Descos du liggéeyee noonu. non fa fa nga njëkk a bañ am sax mooy même bu Descos wàccee. waaw ne la waroo fi tabax. demal Descos nga lijjanti boo fa waree fay nga fay fa. te tam jaay précisé nañ benn affaire démb de. Uh-huh. mooy ñi ñuy toj seen tabax yi ñuy nekk di yuuxu.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 ñu daal di nag dëgg première recruté ñoom àll bi diggante ngaab ak duy sangola benn dëkk benn village bu nekk foofu ci ginnaaw ngaab ñu leen yóbbu foofu laa lañ leen wàccee palte paltee leen jël seeni jëwa jël seeni portable jël seen xaalis moom daal jël si ñoom daal li ñuy li xale yi yoroon daal leen di wàcce foofu nag xotti seen yére yi ak paaka yi yoroon ñu xottee ko seen yére yi xale yi nag dugg si àll bi nag di daw dañ leen bàyyee ñoom ba déparé seen oto ba dem xale yi dugg si àll bi di daw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

nee ki ñu ba nit ñi naan dëgg waxul dëgg. ba mu wax wax fa lañ ko violé dem bitim exactement même lieu bi la même configuration bi même situation même situation comme loolu lañ ko donc aussi euh, ki nga wax léegi nous, bi dëkk Ngaabu. nous, mm, chef de village. waaw mm-hmm. Abdou Salam Lo. nous, parce que aussi nañ yu bu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

mu ne ma nga mën naa deux semaines le 19 lay le 19 boobu ma le 18 mu ne ma amagul confirmation aéroport ni ki man place ci Air France le 19 jot ma encore mu ne ma déedéet ci bureau ñu waxtaan mu le 23 dugal naa le 23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 police su nga sa plainte dem police bi plainte ba ma plainte bi trois jours après ñu defee rek ñu tribunal ci 2021 une semaine avant avant tabaski bi ñu au tribunal ñu dem tribunal ñuy entendre leen ba six mois.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 ma remboursé 15 millions deux jours après mon arrestation Quelques temps après am ñeneen ñu commencé wotante ndekete sama wa agence ci biir dafa am ño ne faction faction dissidente la dem di liggéey ci agence bi bureau bureau ñenn ci ñoom li ko jiitu problème koy wax naa ko sànq mais am ci client yi ñoo xam ne problème tukki boole moon ak ñoom ndekete ñoom dañoo ñëwoon rek uniquement pour yàqal ma te xaw moon ndekete ñoom loolu a tukki ñooñu nag bi xam naa na Ndiaye deuxième partie bi du ci xaj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 li li mu wax que problème Sénégal da ngay dugg investissement nit la fa yàlla di wërsëgale xam ne lañ fa a am dañuy yow business bi li ngay am. Hmm. mais nag bi Covid arrêté na def na parce que xam nga Covid borom nationalité sax réew mais pourquoi ngay encaissé. moo tax la gëw dina. Hmm. mais man suis mais daf ko ëppi loxo dama may benn communiqué Adja Sow moom ko jox ñaar non ñaari communiqué ñaar. <laughs> xaar de xaar ñu xool allo président. Adja déedéet eh, nekk. ñaar mënut a nekk. mu waa yee demal ci Adja nga ne ko na wax Omar Dieng mu wax Binta Guèye ne mënut a nekk.